ñi ngeek Oje bi nga xam ne moom mi ngi nekk responsable politique fi nga xam ne moo di Gambie nekkit benn opposant boo xam ne ñëpp xam nañ ko euh, tey jii est-ce que mën nga ñu wax situation bi nga xam ne moo am ci Gambie. waaw situation bi nekk ci Gambie fi mu nekk nii dafa mel ni ñun ñëpp daal dalul xel digte réew su amul luwaa rek loolu dafa mel ni kon lii ñëw ñun ñëpp xam nañ ko mooy. fitna laa indi te gannaaw am nañ fi président boo xam ne dafa jël alxuraan mu ne moom jullit la mu waat ne li lu waa réew mi wax mooy constitution bi moom loolu laay doxal te dina ko doxal te lu dina gis ne luwaa bi rek mooy doon mu waat loolu ne moom jullit la waat ko ci alxuraan te ñu gis ne bés bu nekk li nga xam ne luwaa réew mi wax na ko moom mu ngi def lu uteeg loolu di ko seetaan te di ci noppi te nit ñi nag suñ toogee ba léegi ñu xam ne nit ñi nga xam ne ñoo war a gis ne luwaa dox na ñooñu nekk yàqakati luwaa kon nag loolu mooy ñu ngi oote pour fitna loolu mooy coono réew mi fi mu ne jàppaleen ko dóor leen ko dàqaleen ko toroxal leen ko moo nekk ci réew mi ñaar fukki at ak ñaar lu nekk nag dafa fu moo em ñu nag li xew ci yeneen dëkk yi loolu taxoon ñuy wax ne soo gisee yàlla joon ñu xel dañu war a seet lii xew ci yeneen dëkk yi lu baax ñu roy ci loolu lu bon ñu aar ko ba mu egg ci suñu réew waaye gis nañ ne nguur gi nekk fii duy gis duy dégg te du déglu du laajte kon nag façon yooyu xam nga ne ci ñag bi nga jëm mhm. te nit benn nit mënul dara ñaari xel ñoo ëpp ñetti xel ñetti xel ñoo ëpp a ñeneen nekk ci réew mi Yaya Jammeh di déglu kenn moom kenn naay nguur moom kenn naay doxal moom kenn naay wax moom kenn naay def. léegi li ñu seetlu moo di am na ay responsable politique yoo xam ne jàpp nañ leen ku ci mel ne Laye Dabo fi mu nekk nii tey jii waroon nañ leen yóbbu ci tribunal mais est-ce que yéen opposition bi jàppale ngeen ñooñu bu baax. waaw yóbbu ne leen tey ci tribunal ñu ne ba àllarba. Mhm. ñun nag opposition bi ñu ngi daje di waxtaan. mel ni lu nekk foog mu am loo xam ne ci sekkar ngeen koo def ba soo leen pare di te sooy sooy def jëflante ku mel ni Yaya Jammeh doo nekk li nga bugg yëpp da nga wax kon ëllëg daf koy xam te kon dafa mel li nga bugg a doo ko am waaye dinaa la won ne opposition bi ñu ngi waxtaan te ñu ngi def ba nga xam ne dinañ gis ne lii xew ci réew mi ne ko saafaaral te dinañ ci def liñ ci war a def lan ngay tontu ñiy wax ne fi mu nekk nii yéen dafa mel ni mbir yi da ngeen ko bàyyee waa UDP rek ñoom ñu moomee xeex bi yéen xeexu leen. léegi xam nga ñooñu kon xamuñ li xew te ñun bàyyiwuñ ko UDP rek bu ko lii du yëfi UDP man de gisee wu koy fi UDP yëfi réew laa ko gisee. te ci démocratie ak human rights benn nit rek suñ ko defee luñ ko war a def dafa réew réew yëpp lañ ko yëpp réew rek la yëpp lañ ko def te ñun da war a passé nag fu ñoo gisee. tegoon lii dañ ko teg UDP soo ñun teguñu ko kon dafa mel ni ay mi xit la li ñu waxoon ñu ne ba gestapo yi ñëwee pour jàppa ki nga xam ne mooy njiiti juuy élimaan bi ak faada bi ne yóbbu leen ko kii ak ñun bokkuñ diine ba ñëwee pour jàpp élimaan bi faada bi ne waaw kii tam bokkuñ diine yóbbu leen ko ba ñëwee nag pour jàpp faada bi kenn nekku fa pour nekk seede lu bon lu bon la pour ñëpp lu baax la pour lu baax la pour ñëpp liñ def nii Gambia lañ ko def defuñ ko UDP rek ñun foofu lañ ko teg. waa ci loolu euh, taxawaay bi yéen yéen réforme ngeen bëgg ñu def ci li nga xam ne moom moo jëm ci euh, vote bi te élection présidentielle ni nga ko jàpp weeru décembre. waa am nga defoon nañ li fi ñun parti opposition yëpp daje woon nañ ñu def suñ comité ñun opposition yi nag ñu jël Ousseynou Dabo bi ñu jàpp ni def ko njiiti njiiti organisation boobu. Mhm. pour loi bu bon bi nga xam ne teg nañ ko fi loi bi jëm ci yëfi élection ko dugal di te yaay jame xam na ne kenn buggaatu ko mais mu bugg a yoo xam ne dina gën a jaf bu jafee pour opposition mun taxaw léegi bi na neñ ay këyit yónni ko ci moom yónni ko ci parlement bi yónni ko ci ambassade yi nekk fii yëpp yónni ko ci président Macky Sall mi nekk ci amaan ECOWAS mhm. tey ko ci UN loolu la ñoo topp nag fi mu nekk nii pour seet naka la ñoo defee ba yooyu di te Gambia moom kenn la ay ah, Gambia dafa nekk ci ECOWAS bokk ci EU bokk ci UN suy def nag yoo xam ne mbootaay yooyu liñ signé soo faa bokk dafa juyoo ak lam signé woon foog naa ne nekkaatul mbiri Gambia rek mbiri réew yooyu yëpp la mbiri mbootaay yooyu yëpp la mm-hmm. loolu nag bokk na ci benn ci jéego yi nga xam ne est-ce que jàpp nga ne ay élection dina jëlee Yaya Jammeh ci bopp nguuru Gambie. waaw seet nga Yaya Jammeh ki ma ko mën a toolaaleel mooy bag bu mu nekkoon Ivory Coast. ba mu toogee mu ne moom élection mënu koo génne coup d'état mënu koo génne. waaye Ouattara ba mu takkee ndigaam def opposition bi ñu nekk benn ñu dem élection li élection waaye doon bon yëpp nit ñi gis ne sànni nañ opposition bi. baax na ne si yëpp gisee ne opposition bi wóorul waaye Ouattara ci ëllëg nga def ci dara moo tax dama ne su dee ñun day gom ci diine kon ci yónneen la gënoon a jagee pour nit ñi di wax ne bàyyi nañ ko yàlla mbaa dañ leen toog rek lii yàlla na ko génn waaye yàlla Moussa dafa ñëw gis gu bon mu taxaw xeex ko ñeneen fukki at yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw gis dëgg taxawut mu xeex dëgg ñu gaañ ko ci kay ci nijaayam rek ci mbokkam dama ne ñun gambien nag ñu ngi organise ñu ngi def li nga xam ne war te dama la woon ne nag tooguñ nelawuñ te du yàgg di ngeen ñu dégg. waa ci kaw dégg boobu am na ñun jàpp am na ñu ñu rey loolu lan nga ñu ci mën a baaxee ci ay xibaar. waaw xam nga loolu yëpp dañ ko wax ñu ngi ñu ngi wax ne nañ ñu woon ne ne moo tax ci code bi sa gars wax ne ne kañ jàppoon ñu ko sooyee solo Sandeng nañ ko génnee mbaa ñu wax fi mu nekk. war nañ xam nga day waxoon ne rey nañ Ablaye naka Ablaye Cissé waaye tey maa ngi gis ci jour yaay ne mu ngi Sénégal. waaw ñooñu yëpp nag ñu ngi leen laajte pour ñi nga xam ne jàppoon nañ leen moo tax dañu waxoon ne code bi duñ ko def ba lundi ñëwee gisuñu leen. looyee yi dañ ne ni leen génne di ko bokk ci ñi jàppoon. ban kàddu gu mujj ngay dénk sa mbokk Gambien yi nga xam ne ñëpp ñu ngi lay euh, dégg fi mu nekk nii ci international bi. li ma leen dénk mooy. koo xam ne yaa ngi support Yaya Jammeh na xam ne yaa ngi support lu bon. koo xam ne yaa ngi support yaay jàmme yaa ngi support lu newul dëkk koo xam ne yaa ngi support yaay jàmme yaa ngi support lu lu lu lu bokkut ci yoon ci réew nag soo buggee jàmm am fa da ngaa def dëgg doxal dëgg doxal yoon waaye soo amee nguur goo xam ne di rek la fi nekkee ak def loo xam ne du yoon ak lu bon kon ña koo support ëllëg lu xew ci réew mi ci lu bon ñoom ñoo toroxal seen doom yi ak seen sët ñun opposition bi nag li ma wax ñi nga xam ne ñu ngi support opposition bi yëpp buñ nangu pour gisee UDP UDP PPP man maay njiiti PPP NRP nañ gis ne opposition bi yëpp benn jubluwaay ak benn kenee ak benn taxawaay lay am pour réew mi pour génnee fi mbon génnee fi jubadi mooy yaayaa jàpp delloo si fi démocratie ak kuy respect loi ak kuy génnee jubadi bi nga xam ne moo nekk ci réew mi ne bokk kàddu bokk ak jubluwaay opposition bi pour liñ bëgg def ñu mun koo def ci jàmm. jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm a baax Dieng Diallo di fàttali rek ne yow euh, responsable politique nga bu mag euh, ci bi bokk ci wàllu opposition bi jërëjëf.